Euh, huissier de justice moo fi ñëw ànd ak euh, ay euh, gendarme ñu ñëw ngir saytu li nga xam ni moom moo waa évaluer li nga xam ni moom moo am ci kër gi donc Mantoulaye Thioub Ndoye moom Hadji Mamadou Mansour Diop El Hadji Ahmed Aïdara Cheikh Sarr ñu ànd ak tamit auditeurs yi ci 88 628 89 90 88 et 628 28 28 ñu ànd ak auditeurs yi su ko defee ñoom it ñu wax ci seen xalaat euh, allo salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ ñu ngi lay ñu ngi lay déglu. bisimilah jaajëf bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar. ñu ngi lay delloo nuyu yu toll nii nekk nañu moment woo daal. Mhm. Euh, di leen xam daal ki nga xamante ne ni waxuñu kenn fudul ki nga xam ne moom la yàlla dogal tey jiw toog ci kaw réew mhm. amoon na na xool ci ku mel ne Abdoulaye Wade bis ñekkoon na fi bu ne amoon na ko te ci jeexal na yàlla mënatu fee dogal dara te moom aussi bisam na aussi ne bis dina ñëw intervention yi soxla ay sëriñ di wala ay di ko ñaan di ko ñaanal di di ko ñaanal jëf jii mu def nii bisa ngi ñëw su ko ñaanee ko am te bu wax ku ko ñaanal xool jëf ñi jaarale Sénégalais yi hmm. ko muñ ah nit ñi am nañu topp ci di topp ci war beesu beesal suñu bopp fi mu nekk di topp ci euh, tëji télé xool doomu adama yi nga xamante ni xëy na waxtu yi soxla euh, nañ ndékki soxla nañ nañ reer bu ñu seen waajur yi xëyee bu ñu leen joxee ndékki bu ñu leen joxee añ ngoon reer ba ñoo koy lijjanti seen bopp loolu daal moo gën a ñor vraiment yi ñuy def di ay rajo ngir ay politique ak yeneen bisam bisam nag mi ngi ñëw rek sa bisa nga ñëw bu ñëwee nag jëf mhm. yi ñuy def doomu aadama yi tey ji ak ñi ñuy def ak métti teg nit boobaa képp ku ci intervenir bi ah hmm. dëgg la. dëgg la dëgg la. en tout nekk mën nañu ko wax ci kër gi ba mu des euh, ñàkk démocratie euh, ñàkk yamale ci wàllu média ñàkk yamale ci wàllu plateau loolu moom ñu ngi def suñu liggéey normal li ci des itam euh, ci innovation yi ñuy def journal commenté lu tas la donc nag bu fekkente ni bi xëy na liberté Euh, d'expression ak bàyyi presse def liggéeyam euh, mën naa yegg ci nguur def nii <laughs> euh, nañu def nañu def allo. uyu ko. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ñu ngi lay nuyu di la ziar. man la Aliou Sidi di wootee de bopp. waaw bisimilah Ali. waaw ñu de affaire bi am nañu lu ñu naqari loolu tey. Mhm. ndax Zik moom Zik rajo Sénégal bi yëpp la. Mhm. su xëyee di lu lii am na lu ñu. lool lool lool sax. Mhm. waaw mais nag li ngi seen ginnaaw te di leen ñaanal. walaay Ali. waaw yàlla xam na ñu ngi ñaanal bu baax a baax a baax te bu soobee yàlla jàmm rek ngeen am. incha allah incha allah defoo leen dara si yoonu liggéey rek ngeen nekk. walaay walaay dëgg la walaay dëgg la. waaw dem leen rek. dëgg la kontaan kontaan baax a baax di ñaanal Ahmed Aïdara sunu maire bu Guédiawaye yàlla na yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbal waaw. di leen di ñaanal baax a baax di leen encouragé. wallaay wallaay wallaay wallaay. jërëjëf jërëjëf Ali kontaan nañu bu baax ñu ngi lay sant bu baax. Euh, waaw xam nañu seen taxawaay. maaleykum salaam. waaw sëñ bi ziar naa leen. ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax sang bi. yéen a ngi ci jàmm. sant nañu bu baax alhamdulilah. ay sara di woote crédit foncier. ok ñu ngi lay ziar bu baax sang bi. naka yi tey. ñu ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah. bismillah bismillah. waaw affaire bi daal métti nañ trop trop trop. Mhm. ba fu métti yam. Mhm. ñun nag bokkuñu bokkuñu gëm sa bopp. dëgg la. ànduñu ak bugaan. dëgg la. waaye affaire bi mett nañ lool lool lool lool lool lool. ah affaire bi du politique sax. mosuma mosuma mosuma man mosuma woote rajo ku wax politique génn ma ca man. c' est la première c' est la première fois te rajo man. Mhm. billaahi bi mi ngi ma fekk ci suufu RFM la ma fekk ci ci CBAO bi. dëgg mais affaire bi ma koy déglu di déglu tës bi ñu ne dugal nañ justice ak gendarmerie ci biir. Mhm. non dama dama am lu ma metti lool. dëgg la dëgg mais nag li daloon firaaw na. boo sàggantalu dina ko dal moom. dina moom Macky Sall. dëgg la. waaw mais nag naa maa ngi leen wax leen góorgóorlu leen fi ngeen teg seen liggéey foofu la. wallaahi wallaahi. waaw bu leen teggi seen tànk de. déedéet. bu leen mosat seen tànk mun leen doon tëj rajo bi di ko taal sax billaahi wallaahi taala fi ngeen jàpp foofu la. déedéet bu leen ci dara jëlee. mbott jamono du neex ba mu dox day tëb rek. waaw am yàlla yàllaay buur. ñàkk yàlla yàllaay buur mbott day tëb rek. yàlla dong nga fi nekk yàlla suñu borom kese kenn nekku fi. wallaahi. waaw am na ñu fi nekkoon ab Senghor a ngi fi woon Abdou Diouf a ngi fi woon euh, Ablaye a ngi fi woon bis dañu ñëw Macky Sall dana na xalaat bis. wallaay maa la ko wax. voilà la ko wax ñu ngi lay sant a baax. xam nga àdduna. Mhm. Baye Cheikh boo foogee nii am am dafa aju ci li nit kii tàllal ñu jox ko ko par weer mhm. xamoo yàlla la fa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka mhm. boo fàttee doole ci yàlla am ba tax nga fàtte yàlla wan ko ginnaaw yàlla teg la dund go góodul supporté da ngay téye pouvoir am oto am avion alaaji bu saaxo ne si bëggoo xëyee da xoj sa bopp mhm. ci as palaat ngay añe gis kuy xëy du am fifteen sol fukki meetal ak juróom grand mbubb bu yaatu mhm. añi ceebu jën coofam naan soowam ak galaasam tëdd ci sijaadaam ubbi tànkam sol caayam ju ngan ngelaw di ko aw fu nekk. Hmm. parce que dundu ga dafa xam ni. dafa xam ni. Hmm. wa ma min daabatin fil ard. fil ard illa ala llahi rizquha. lekk. <laughs> Eh. jógewul ci nit. Hmm. liñ naan. jógewul ci nit. wallaahi yàlla mi ko bind. moo koy jox téléphone Moussa mu ci euh, escalier ba wetu kii bi. waaw wuy ko wuy waaw nañ ko jël allo. eh kooku dem na ayca bu keneen duggaatee rek ñu jël ko ayca kooku dem na bu keneen duggaatee rek su ko defee ñu daal di koy jël wax nga dëgg daal laaj. ah. réew mi nag réew mi am na fu mu jëm de. la ilaha illallah salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw El Hadj naa la bu baax bi. ñu ngi delloo ziar Assane Fall la. Assane maa ngi lay ziar waay. naka coono yi. ñu ngi sant yàlla Fall. a ah, Assane bi yëpp ñu ngi naqarlu li jot a xew. dëgg. dëgg wax dëgg yàlla seen TV si affaire moom. kuy waxal te yàlla rek tax. wallaahi waa xam ne askan wi la ñu féetewoo. wallaahi. seen ligne éditoriale rek moo déranger ñu fi nekk. te it ligne bi moom askan bi ngeen féetewoo. waaw wallaahi. da ngeen dénoncer li nga xamante ni du dëgg du yoon. wallaahi. tey justice bi fu mu féete ñëpp xam nañ ko. tey gis nañu taxawaayu Zik FM askan bi dimbali ngeen di nga état bi sax defu ko. Mhm. kon tey dañu war a xam ne l'histoire retiendra ëllëg dañ leen di bindal ñoom luñ fi bàyyi. tey suñu maam Ablaye Wade bu mu fiy jógee gis nañu fu mu bàyyi démocratie bi. tey démocratie bi ñu fi nekk ci démocratie lañ fi toogee. Mhm. kon bu buñ fiy jógee nañu fexe jóge fi ak démocratie. Mhm. waaye lii ñuy def nii dafa teexel lool lool lool échéance élection yi ñu jëm. Mhm. nañu xam ne nag askan bi pare nañu pour jaamaarloo ak ñoom lépp lu mu leen jaral rek jaral nañu te yaakaar naa combat bi dafa war a commencer dès à présent. tey bépp képp koo xamante ne tey soppee askan bi nga. tey war nga ñëw des médias wane sa naqar ndax lii defuñ ngan ko waaye askan bi lañ ko def. Mhm. a yaakaar naa yéen a fi benn mét xam ne yéen a ngi dénoncé lépp lu fi dul yoon. Mhm. tey faru mhm. la nax ma Demba faru la nax ma Paate seen patron des politiques waaye tey. bu jaadee yoon di ngeen ko teg ci yoon. waaw waaw kon askan bi leen tax a jóg ñu ngi leen di masaw bu baax a baax di leen jaajëfal. wallaay di wax ni dëgg moo njëkk dëgg moo hmm. yàlla ñëpp la fi nekkal rek. wallaay dëgg la yàlla am na dëgg bi moom yéen a koy mujjee. wallaay bu baax a baax a baax. dëgg rek mooy mujj. waaw te Ameth nag am na ku dugg sànq di ko kii ma ma koy xamal ne ko am na depuis 2009. waaye ñooñu ma commencé wax. ñooñu dañuy wax rek sa façon dañuy wax rek. dañuy wax rek am nga nit aussi. nit aussi da ngay maandu di wax lu la wóorul. mënoo fekk genn njaboot benn dëkk ngay tapase. Hmm. di jaxase yooyu duñu leen bàyyi muy jàll. wallaahi ma daa fekkul ma génn waaye yooyu maa ngi lijjanti ne pat rek. yow yow amal jàmm rek yendu la jàmm rek ba keneen ñëwaat fekkaat ma fi seen waxi kii yooyu noonu. benn combat la. Hmm. bu ñuy bokk di ko xeex. Hmm. du sax combat. du sax combat wuutale ci wàllu principe. Mhm. tey boo nekkee Sénégal ni da ngay da ngay combattre ak président Macky Sall kan ngay combattre Sénégal. Sénégal bu dee da ngay combattre ak euh, kan ngay combattre Sénégal. Mhm. booy combattre ak contre Khalifa Sall kan ngay combattre Sénégal. Mhm. ñun Sénégal la. dëgg la mais wuute ci wàllu gis-gis faaw mu am. force diine ji ñu nekk yenn saa yi nga gis benn hadis boo xam ne kenn moo koy solo. gis hadis boo xam ne ñaari koy solo. gis hadis boo xam ne dañu naan mu tafaqoon alayhi ñëpp ci àndandoo d'accord ni ci gis addis boo xamante ni bii dañ naan dafa woyof. mais ça se passe exactement comme ça loolu mooy dund. da ngay am sañ-sañu xalaati nii. mais loolu moo ñu bàyyi fii ñu nekk di liggéey. parce que mooy métier taskatu tasum xibaar. da ngay xalaati nii keneen xalaati nii nga jël ka xalaati nële ak ka xalaati nële boole leen jàllale ko. gis keneen ku xalaate naneen te mën amul accès ci yow. nga déglu ko dajale xalaatam boobu yow toggaat ko. taxaw commenté ko ci ñëwoo ak sa idée bopp ñëwoo ak sa xel bopp loolu mooy mooy Séné mooy Sénégal am miniature. et puis et puis et nguur sax boo ci ah. nekkee. ki lay wan say faay kookooy lay jàppale. Ah. kookooy tax nga mën a defar fii defar fee. parce que ah. kenn mun ta nekk fépp. te mënoo nekk ci nguur ne ñëpp dañ may dañ may nangul. yàlla ci boppam mi nga xam ni. moom mooy yore ruu yi di fàqat waxtu ko neexee sax am na ñoo xam ne gëmuñu ko. am na ñoo xam ne bi mu wootee faalewul ko. donc euh, nañu nañu nañu delloo si démocratie ci réew mi rek kenn ku ci nekk na def sa wareef kenn mënul parce que nit ki boo defee sa devoir sañ ngaa laaj sa sañ-sañ. Mhm. waaw nañ na nañu xool. Euh, ba tey ñu xool ñu xool ñu xool auditeurs yi ci 88 628. 89 90 allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax a baax. bisimilah. man de maa ngi Sandaga waaye am naa lu ci trop trop trop trop. Mhm. ndax lii dadul yoon. Mhm. yéen vous dérangez quoi vraiment. parce que man mënuma comprendre euh, yow nga nekk ci réew jiite ko. war a war a war a joxe ay ngay xaj ñi ñi emploi lii dafa ñaaw trop. neex te imaginer de. bilaay dafa kenn mënu ko comprendre. neex te xalaat wallaahi neex te man je vous suis chaque mm-hmm. te te vraiment man du ma déglu beneen rajo bu dul yéen. ndeysaan. vraiment man dama am lu ma métti tey dama am lu ma métti trop trop trop nii Sandaga ñëpp dañoo am lu leen métti tey. dëgg la wallaahi. parce que da dul yoon. wallaahi dëgg la. Euh, niñ koy waxatee yaa ngi fi. Mhm. di doxalee nu mu la neexee. Mhm. bañ ku ko wax. Mhm. loolu loolu moom dadul am ci mim réew. fii loo fi def. bu baaxee nit ñi di dinañ ko wax. bu bonee nit ñi dinañ ko wax. bu yeboo bu yeboo ak koo mënti doon. koo mënti doon loo fi def lu baax di dinañ ko wax loo fi def lu bon dinañ ko wax. bu yeboo nga tëj rajo boo tëjee rajo yi yeneen ñi dinañ. Mm-hmm. boo tëjee rajo nit ñi dinañ génn wax la ni li nga def tegoo ko fenn. Mm-hmm. waaye ñun dañoo sonn waay ci ci ci ci yenn yi kii yi quoi da dul yoon quoi. teguñu ko ci benn yoon. métti na de métti na de. fi ngeen teg seen tàng foofu la. continuer leen ko ñun askan wi ñun yéen lañu àndal. wallaahi te loolu ci am solo. loolu rek moo ci am solo. wallaahi gërëm sant nañ leen gërëm nañ leen. mënoo mm-hmm. toog mënoo toog ne kenn kenn ñëpp mën la àndal loolu yàlla sax amu ko. yow nga bëgg koo am loolu mu nekk. mënta nekk de. jërë ngeen jëf. mënta nekk de te am na ñoo xam ni. Mhm. sax nag dañoo amul fu ñuy féete ci wàllu politique. Hmm. gis nga euh, alaaji mhm. ligne éditoriale. Mhm. moo la may li nga am. c'est ça. ni nga ko doxalee. ba nga fi ñëwee deux minutes ak léegi. moo la may tey li nga am dëgg. dëgg du ko soppi. dëgg. dama ne amul benn leader politique laa la wax. dëgg du Ousmane Sonko. du Macky sal du xalifa sal du Bougane Gueye Dany mi moom fii. bu mën a changer ligne éditoriale. Mhm. man boo sama bopp laa wax. Mhm. xaw ma ñeneen ñi. Mhm. nit mënuma farloo. bu dee loolu moo tax ñenn ñi di di di di di wàcc raay ak ak di dérivé. loo doon wax ci sëñ Cheikh Tidiane. rajo la talam nit ku ne am nga droit far mais par parloo. par parloo mu baaxul. waaw. waaw Macky Sall bañ nekkee ca jamonoy opposition. parce que day am pété. ñoom ñoo la daan tagg. naan la ni nga koy doxalee baax na. waaw ah, ah, waaw. waa kër Ablaye Wade ñoo la daan xas. Mm-hmm. tey ñoo ñooy sa xarit parce que ñoo nekk ci si ñi dem ci nguur gi ñooñu. Mm-hmm. tey ñooy nekk say noonu. Mm-hmm. déggoo ma de. politiciens yi noonu lañuy doxalee. fii moom. amul Pastef. la pensée unique amu fi. amul gëm sa bopp. bu buggaan ngay dani. amul Macky Sall. amul dara. lu ñu bind ci journaux yi noonu lañ ko waxee barki démb rek benn waaye ne ma man de ni ma la contré woon mais keroog bi ngeen demee Tiwaawoon te sëñ Moustapha recevoiru leen. Mhm. ca laa la jàpp. damaa foogoon boo ñëwee solo ma ne ko yow loolu luñ bind la. Mhm. damay liggéey weer wi dee ñu fay ñu point. Mhm. fii amul ay affaire par parlo. ku yaakaar ne nag dañ fii ne ñu lay taggal say juróom-ñaari maam juum nga. ligne éditoriale bi fañ ko teg foofu lañ koy teg. ba keroog yàlla di dogal wërsëg bi fi jeex ñiy jaar nii ñiy jaar nii. parce kenn ñaanul yàlla retraité fi. Macky Sall nag moom li ñu koy waxal moom kooku moom jarul ñu ci insister. Mhm. waaw suñu kàddu yu démb ya moo fi nekk ba tey. Mhm. deux mille vingt quatre nga takk say bagage dem ñeneen dikk ku fi ñëwaat nekkaat dictateur ñu def la comme ni ñu def Macky Sall wax ji jeex. Mhm. c'est tout. jël leen keneen ci ligne bi. muy dëgg de. yaakaar ne fii nit ñi dañ fee nekk pour di fi tagg ay góor la ñuy juum. Mm. est-ce que c'est manière. alors ñu ngi. Euh, da baax ñu ngi lay ziar. wala wala ndeysaan. kilifa yi ñu ngi woote ku mel député. ñu monsieur Abdou Bara Dolly Mbacké. Euh, euh, Amsatou Sow Sidibé. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu am professeur Amsatou Sow Sidibé. ah si en direct ah, ah, ah. bismillah. salaamaaleykum professeur. allo salaamaaleykum. allo waaw professeur. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi bismillah ñu ngi lay dalal bu baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah. bisimilah bisimilah bisimilah maman. sa xalaat sa xalaat ci li ñu dal tey. ma ne luy sa xalaat ci euh, li ñu arrivé tey ci suba gi. sama xalaat moo di ne dañu yeewu encore ak njàqare. te ñun dañu bëgg suñu réew nekk réewu jàmm ak salaam. suñu jógee yenn xol yi wow bët yi di tooy xol yi di tooy. daf ñuy naqari. Mhm. te dafay tax ba nga xam ne la ñu bëggal suñu réew duñ ci mën a arrivé. Mhm. ndax xel du dal bopp du dal léegi nag dama ni man de xaw ma fond problème bi de te du ci dugg duma ci wax waaye dama ni lu problème metti metti metti war nañoo mën a toog ci taabal waxtaan ba déggoo. <laughs> lu mënul am déggoo amul amul ci àddina nañ leen toog waxtaan ma bëgg wax ni. <laughs> Euh, di jël ay ay ay lam euh, euh, lan di moo am foofu ci mbirum machine ak ñoom seen xëy na pour jël leen du du temps bi. ngay <laughs> liggéey seen TV ay jeunes lañu am seeni soxna am seeni borom kër am seeni doom ñu nekk ci rentrée scolaire bi. ñu war a xalaat ni ñooñu war nañoo am salaire fin du mois surtout que xeex bi ci Sénégal dañuy xeex pour lutter contre le chômage. Mm-hmm. le chômage. Mm-hmm. alors lii amee dañuy jaaxle man ni nañu toog waxtaan mm-hmm. loolu la ñu ñaan nguur gi toog waxtaan comme ça problème bii ñu réglé ko te ñooy liggéey foofu seen bët du xoox seen xol du tooy. kenn sa xol du tàng. Mhm. nañu arrêté nag lii yéen daal maa ngi leen di encouragé. merci. parce que Sen TV macha allah. Mhm. dafa bokk ci groupe de communication yoo xam ni. Mhm. dañuy seral xolu askan wi. ndax li xew dinañ ko yëg. discussion yi ñu ngi ci. nañ leen encouragé nguur gi na leen encouragé loolu mooy réew bu bëgg développé bu ñu gisee nit di góorgóorlu nañ ca jàpp bu ñu yàq léegi nag nañ toog waxtaan juboo ba nga xam ni jàmm dafa naan ñooy loolu laa bëggoon a wax. Mhm. ci yëf yi. merci professeur ñu ngi na mais am na solo Baye Cheikh. am na solo trop professeur mhm. Amsatou euh, ci euh, réaction bi nga xam ni euh, amal na ko ci li xew fii ci D-Média ñu fàttaliwaat rek. jot en cours que D-Média dañu xëy ñu indi leen huissier ak avocat. ak euh, cargo gendarme ñu ñëw toog pour euh, def li nga xam ne moom moo di. inventaire inventaire pour xool li nekk fi ci des médias moo xam Sen TV Zik FM ba ci la tribune. Mm-hmm. donc ñu ngi ci locaux yi boobu ba léegi di def inventaire. bàyyiwuñ dara bàyyiwuñu ordinateur bàyyiwuñu chaise bàyyiwuñu table bàyyiwuñu lampe bàyyiwuñu micro. Mm-hmm. bàyyiwuñu sax euh, split maanaam clim yi fi nekk. Mm-hmm. bind nañu lépp lépp ak i commande waa ak i commandant mm-hmm. donc li ñu def nag xam naa ne alaaji eh, li ciy tege mooy bu ñu fayul mm-hmm. dañuy ñëw récupérer lépp su boobaa nag ecran wu seen TV dana dana dana lëndëm mm-hmm. euh, fréquence u Zik dina suus waaye la tribune kenn dootu ko gisati ci marché bi loolu ca la ñu jëm yàlla tere yàlla tere ndax loolu moom mooy euh, doxinu ñu fi ñëwoon am réew nag bu ñu demee ba nga xamante nit ki amatul sañ-sañu wax xalaatam ci réew mi loolu li ñuy tuddee démocratie amatu fa mhm. te démocratie moom mooy jur république mhm. Mhm. démocratie mooy jur république donc bu démocratie jeexee rek république jeex jeex na fi te bu république jeexee rek royaume la ñuy dugg donc instant bii nii nañu jàpp waaye mënatul am mais waaw anarchie lay nekk parce que royaume mënatul am ci àdduna mhm. jeex na loolu wees na mhm. ñi ko desee kës néew ñoo ko desee te soppi nañu seen royaume boo bàyyi fa appellation bi mhm. soppi doxalin ni démocratie yi doxee maintenant fépp dañuy dañuy ñëpp mën a dund joxe sa xalaat ñëpp dund wax sa xalaat ñëpp dund bokk ci li am ci réew mi ñëpp dund li xew nii lu tax nga def ko da ngaa commencé def ay déguerpissement lu tax nga def ko fa sukkandiku. Mhm. boo ko defee ba noppi ña fa nekkoon di liggéey lan nga leen waajal. ñooñee noonee boo amee ci ñoom solution fii lan nga fiy def. Mhm. lan moo la poussé nga def nga def déguerpissement bi. Mhm. ñaata nga ci.